may ndam rek ma ne leen suñu Ndakaaru na suñu na dañu am fayda dañu am fayda nañu respecté suñu Ndakaaru suñu na kon nag mbokk yi mbokk yi waaw mbokk yi ngeen may ma rek ma jéem a tënk lu ma wax ci nasaraan ma tënk ko ci wolof ah, ginnaaw ba ñu defee une minute de ñu jagleel loolu suñu rakk yi suñu dëkkandoor yi suñu mbokk yi ngeen xam ne ni dañ fi jot ñàkk seen bakkan ci événement yu fi amoon ci mois de mars dernier ci atu 2021 dama bëgg wax ci leer ñooñu suñu defuloon nu ñu defoon suñu am loon taxawaay bu ñu jotoon am ci événement yooyu tey nguuru président Macky Sall du fi organiser élection kon nag ñoom ñu ngi ñaan yàlla ne yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi di ñaan tamit yàlla na yàlla may seen mbokk yi ak seen njaboot yi xolu muñ wante démocratie lu mu soxla dañ koy jox te démocratie ko soxla woon parce que amul benn république fu ay ñit di mën a dëkk ci jàmm ak salaam te démocratie saxu fa donc ñooñu ñu leen defee ginnaaw ba ma nuyoo mbooloo bu fi teew si tey fii ci da ci meeting bi may ma euh, spécial conférence de Askan Wi mention spéciale dix-neuf yu nekk euh, ci dix-neuf communes yu xam ne ñoom la ñu ci turu Yewwi Askan Wi ma def tamit mention spéciale ci bépp góor ak bépp jigéen bu ñu investir ci liste Yewwi Askan Wi ci ville de Dakar ma daaneel ci mention spéciale yi bépp góor bépp jigéen bépp mag bépp ndaw bu ñu investir ci bépp liste Yewwi Askan Wi biir 19 communes yu Ndakaar mbokk yi nag tey dam leen di laaj rek parce que man dama bëgg damay laaj rek baa xol yi sedd na damay laaj baa xol yi sedd na ah? xol yi sedd na comme xol yi sedd na guy kon nag woy ngeen ko ba pare saay saay bu mag a mag doogu moom sul nañ ko dee na suul nañ ko bu ci des nag mooy sarax si wax naa nañ ko mooy le 23 janvier 2022 na ngeen lu ba seen taxawaay seen doxalin seen jëfin bu kenn am xel ñaar ci suñu ndam bu ñuy am le 23 janvier 2022 incha allah parce que moom mooy nekk le premier tour de l'élection présidentielle. ginnaaw loolu nag mbokk yi candidature bi dama ci ànd ak mbégte. wante xam naa responsabilité bu ngeen ma dénk te su ci yàlla àndee incha allah dama fas yéene ànd ak yéen doomu ndakaaru yi ànd ak suma yaay yi ànd ak suma pàpp yi ànd ak suma mag ñi ànd ak suma rakk yi ànd ak suma mbokk yi suma dëkkandoor yi ñu bokk benn ndey bokk benn baay liggéeyal askanu Dakar liggéeyal Dakar liggéeyal ëllëgu Dakar ngeen may ma nag ma def mention spéciale su ma mag su ma xarit Khalifa Ababacar Sall xeex nañ ko dëkkaloon nañ ko fu mu dëkkul yàq nañ liggéey ba mu commencé woon fii bi Dakar wante nag saay saay mën na bañ a wax dëgg mën na yàq xel mën na yàq xalaat mën na yàq xol wante Khalifa Ababacar Sall fu mu tegoon tànkam fa laa fas yéene teg fa suma tànk incha allah. kon ngeen xam lépp lu ngeen xam ne ni état moo ñu ko may ci ay sañ-sañ muy lu ñuy woowee compétence transférée mu toll ci juróom-ñeenti sañ-sañ bu ñu état bi dégg dama ci fas yéene ànd ci ak yéen ci fulla ak ci fayda liggéeyal Dakar Dakar nekk dëkk bu set Dakar nekk dëkk bu ngeen xam ne affaire daf fiy am xéwal daf fiy am naataange daf fiy am te jàmm tamit daf am parce que jàmm ci lépp xaj. bëgguma guddal parce que maa ngi gis auto yi maa ngi leen seen te xam naa ni autorisation dañu ko may ba vingt heures wante mbokk yi tooñ baaxul wante lenn na mën naa leen ko wax daga naa gars dañ ma tere dañ ma tere def dox mbokk dama ne tooñ baaxul comme nee nañu coalition Yewwi Askan Wi coalition bu yee fitna la te wax yooyu dëggul ak dëgg yéen ñëpp dégg ngeen leen Ousmane Sonko wax lu Ousmane Sonko wax moom laa wax lu Ousmane Sonko wax moom la ñu wax lu Ousmane Sonko wax moom ngeen wax yéen tamit kon nag suñ ci eggee suñ ci eggee mbokk yi dama ne semaine bii suñ ci duggee incha allah ndax mokk bi dañ koy soppi mu nekk jokkoo ak mokk yi comme nag dañu ne man nangatuma doxantu ci mbedd yi nag di ngeen ma gis ci marché yi ma gis ci jumaa yi di ngeen ma gis ci église yi di ngeen ma gis ci université yi ngeen ma gis ci grand place yi dama ne na ci ak fulla ngeen ci ak fayda dama ne mbokk yi mbokk yi bu may daanalee ginnaaw xool yi set na guy dama ne guy fu may daanalee mbokk yi fu may daanalee mbokk yi mooy élection yi ma ne élection yi mbokk yi may leen ma rek ma daaneel ma ne loolu dafa dama ne élection yi mbokk yi wolof yaay nee na kundoo mi rey sa maam soo gisee du ñuul da ngay daw loolu ñun dañu demoon élection 2017 élection législative député ba onze heures et demie ci guddi ñoo ñoom trois heures du matin ñu daal di génne ay yeneen six ne ñoom ñoo gagné foofu laay daanale nag dama ne pesum kanam borom ak rek ma jëm boppam dama ne 23 janvier 2022 su ngeen demee ba voté ba ñu tëj bi ba dafa ci 6 heures yéen ñëpp na ngeen ñëw suñu général lu ngeen xam ne ni mooy suñu warat ak suñu warugar dinañ ci ànd ak yéen ci fulla ak ci fayda dem dugg ci mairie de Dakar yëkkati Dakar teg ko ci loxo Dakar waay parce que la vérité mooy lan mooy ba Sénégal doone Sénégal ba tey Macky Sall est le premier président de la République du Sénégal qui n'a jamais eu un maire de Dakar dans son parti et dans sa mouvance la raison pour laquelle la raison pour laquelle la raison pour laquelle c'est parce que waa ji cuune la te dafa tële maa ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen ñëpp mbokk yi yàlla dina